dëggal man de maa doon déglu nangam kii dëggal man de maa lekk nangam te léewut ma kay dëggal man de maa xaraf ci fu ma léewut ñoo say cërangoog seede nañ la xanaa seede mën da weesu seede su jóge ci sa bopp ndax it maa foos ne may de ñii laa ko dencal moo def nangam moo def nangam day def na ci man nangam def yi ne ñu ñu boolee toon moo moom ñu bind ay jëfam yi leen bind foofa nin du fa jëriñ dara ku nekk dana taxaw boobu taxawaay weeru koor nag mooy weer wi yàlla tànn mu ñeel boppam